assaadisa juróom benneel bi ila taasixati ba juróom ñeenteel da ko bëgg a far sësali sësali bu gaaw rek la tàmbalee juróom benn ba juróom ñeenteel al juloosu mooy jataay ba al awal ba aji jëkk fii maa ca la nga xam ne fii nekk na ci moom juloosaani ñaari jataay wa tashahud ak taay ba al awal ba aji jëkk wa saani ak bu ñaareel ba bi lafzi ca baat ba al waarid ba aji dikk fii ci moom maanaam gépp julli goo xam ne am na ñaari taay rek xamal ne taay bu ci nekk sunna la ba tey taay bu ci nekk ab jataayam sunna la xam ne kon boo wàññee ñaari taay yi ak seen ñaari jataay mu daal nekk ñeenti sunna taay na boo koy def nga defee ku baat bi nga xam ne moom lay nettali Omar moo ko jàngaloon nit ñi ñuy dégg ca kaw minbar ba ñu mokkale ko ci moom teewu na am na yeneen xeet nettali yu bokk te moom waaye nag waa Malik moom bi liñ taamu mooy bi ñu déggee ci Omar ci kaw minbar ba waxoo moom na mooy nga wax ne attaxiyaatu mboolem baat yi tegtale nguur lillaahi ñeel na yàlla azzakiyaatu mboolem jëf yu sell yi lillaahi ñeel na yàlla ak tayibaatu mboolem baat yu tey yi assalawaat ak mboolem xeeti julli yi ak ñaan yi lillaahi ñeel na yàlla dangaa wax ne baat yi tegtale nguur yépp ak ku màgg yàllaa ko yeyoo jëf yu sell yi moo yeyoo ñu jëfal ko ko baat yu tey yi ni ki baat sikkar yeeg wax yu rafet yëpp rek ak xeetu julli juróom ak lu xeetoog ñoom mbaa ñaan yëpp rek yàllaa ko yeeyoo assalaamu jàmm yàlla xaaleyka yàlla nekk ci yow ayyuhan nabiyu yow yonante bi am nañu jàng ayyuhan nabiyu moom ayyuhan nabiyu yëpp baax na wa rahmatullah ak yërmaande yàlla wa barakaatu ak i bàkkee assalaamu jàmm yàlla xale naa yàlla nekk ci nun wa ala ibadillah ak ci mboolem jàmm yàlla yi asaalihina ñe dewey baax ashhadu maa ngi seere ne an naka lay mbir laa ilaha amul benn buur illallahu dara yàlla waxdahu moom rek laa sharika amul jenn aji bokkaal la wóññeel ko wa ashhadu dinaa seere ne anna muhammad naka muhammad abduhu ab jaamama wa rasuluhu te ab yonanteem loolu mooy taaye ji foofu la yam alxaasiratu fukkeel bi assalaatu mooy julli ala nabi ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam fi tashahudi ci taaye ji al axir ji eji mujj taay ji mujj ji mooy taay ja nga nar a sëlmale xam ne laa jógaat jooja nag nga julli ci yonante bi sunna la moom nag noo jullee ci yonante bi rek mu baax waaye am na goo xam ne moom lañ ci gën a taamu ñu koy tuddee asalaatu al ibrahimiyatu moom lay moom la li bëgg a wan nii waxiye moom mooy nga wax ne allahuma yow buur bi salli yàlla na nga dool tedd nga ala muhammad ci muhammad wa ala ali muhammad ak ñooñ muhammad kama sallayta ni nga terale woon xalaa ibrahima ci ibrahim wax la ali ibrahim ak ñu ibrahim wa barik yàlla nga dolli barke xalaa muhammad ci muhammad wa xalaa ali muhammad ak ñuy muhammad kama barakta na nga barkeele woon xalaa ibrahima ci ibrahim wa xalaa ali ibrahim ak ñu ibrahim fil alamina ci mbindeef yi innaka naka yow xamidun ku ñu sant nga majidun aji tedd nga maanaam asalaatu al ibrahimiya moom it daa bari ay waxiin moom mooy mool tànnal bii rek waaye bi bokk te ba nga gisoon ca ar risaala tool ñu bokk te ba nga gisoon ca risaala waaye boo ci mokkal rek baax na ba tey boo jëlee jonante bi neen mu bokkut noonu itam mu baax waaye tàmm nañ gii nag moom boo ko mënee alxaadiyata xashrata fukkeel beeg benneel xawlu samihallaahu liman hamidah mooy wax samihallaahu liman hamidah lil imaam yi ñeel ilimaan wal fardi ak kenn boo dee jul yow dong mbaa ngay jiite gannaaw boo siggee ci rukkoo ba wax nga wax samihallahu liman hamida sunna la bu dee maawum nag moom du wax samihallahu liman hamida waaye boo dee kenn kuy julli bul fàtte ne yaar yëpp ngay wax boo siggee ci rukkoo da ngay wax samihallahu liman hamida dellu teg ci allahumma rabbana wa lakal hamdu yaar yëpp ngay boole boo dee julli yow dong ak taaniyata xasharat fukkeel beeg ñaareel wa taalisata xasharat wa taalisata xasharat ak fukkeel beeg ñetteel ar raddu mooy delloo xalal imaam yi ci ilimaan ba wa raddu ak delloo sëlmal xalaa man ci ka nga xam ne xalaa isaar yi nekk na càmmoñam maanaam sunna bi nekk fukkeel ak ñaareel mooy bu fekkee am na ku la doon jiite buñ sëlmalee nga wax ndànk asalaamaaleykum jëmale ci moom kooku sunna la muy fukk ak ñaar bu fekkee am na ku la féete woon càmmoñ ci na ngeen toogee di julli te am na julli ko lu ma tub ràkk ba tey nga waññal bi ko wax ko ndànk asalaamaaleykum ba tey loolu sunna la muy fukk ñett arrabixata xasharata fukkeel beeg ñeenteel aljahru mooy biral bi taslimati taxlili ci salmalu yeweku ba faqat dong fukkeel beeg ñeenteel mooy asalaamaaleykum bi nga xam ne mooy farata te moo lay génne ci julli gi nga wax ko ci kaw te bañ ko wax ci suuf loolu sunna la alxaamisatu xashrata fukkeel beeg juróomeel al insaatu mooy xerawlu maanaam mooy déglu lil imaam ñeel ilimaan ba fii maa ci la nga xam ne yajharu dana biral yajharu dana biral fii ci moom fukk ak juróomeel mooy bu fekkee sa ilimaan day biral doonte déggoo ko ndax da ngaa sori mbaa da ngaa tëx waaye xam nga ne moom ci biral la toll rek bu dee yoonu maal dañoo bëgg booy topp sunna da ngay def patt bañ a wax dara dara xam ñoom dañuy jàpp ne bu ilimaan jàngee rek jàngaal na la waaye ilimaan di biral yow ngay jàng ci suuf nag dañ koo sib bu dee ci yoonu maalik lay sunna mooy nga ne patt rek doonte déggoo sax la muy wax bu ilimaan de yellu nag ñu sopp yow itam ngay wax ci suuf ndax sam xel bañ a nekk ci leneen asaadisata asharatu fukkeel ba juróom benneel asuturatu mooy sart lil imaam yi ñeel ilimaan wala fadli ak kenn fukkeel ba juróom benneel fukkeel la juróom benneel mooy boo dee julli yow dong mbaa ngay jiite te ragal ne bala ngaa sërmal am ku jaar fi sa kanam kon sunna la nga wut satir satir nag moom lu mu gàtt gàtt na guddee ne ab xasab lu mu sew sew na na dijje ne aw yat wu dijje te tana set wecc bu mu taq sobe ba mu nekk lu rafet lool mbaa mu ñaaw lool ba sam xel ci nekk booy julli mu nekk di yëngutoo ko dal ne tekk boo ko sampee baax na boo ko tëralee baax na bu la neexee itam rek fekk garab gu taxaw nga daal koy waaxu def ko muy su sattil mbaa ci jàkka ji nga fekk poto rek nga taxaw jàkkaaru def ko sattil lépp mën naa mën naa am bu dee maamum nag moom du aajowoo muy wut sattir maanaam bu fekkee am na ku lay jiite sa digganteeg moom du aajo nga fay jaarale dara moom sa ilimaan rek bu aajo wut sattir moom moo ko wut teg fa kanamam waaye yow sa digganteeg moom du aajowoo nga defa teg dara waya samu dana bàkkaaru almaaru aji romb bay na yeddajil musalli ci diggante ñaari loxi aji julli ji isaakaane dem nekkoon na loxo di ko ñeel bandoo xatun ab yaatu yaatu nee na bu fekkee nit day julli nag nga romb ci kanamam te mënoon nga faa bañ a romb kon na nga am bakkaar bu rëy rëy léeg-léeg ñoom ñaar ñëpp ñooy bokk am bakkaar maanaam moom fa muy jullee mën naa jullee feneen foo xam ne kenn romb ci kanamam moom nag mu dem jullee foo xam ne des fay jaar xam na ne moom aw yoon la kee itam ba mu ñëwee mën naa jaar feneen teggi ko mu aw ca kanamam kon ñoom ñaar ñëpp ñooy bokk am bakkaar bu fekkee nag kenn ka la mu def mënu ko woon ñàkk def ka des rek mooy am bakkaar kon lu ci nekk mën naa am ñu bokk bakkaar bi mën naa am kenn ka rek amee bakkaar bi te kenn ka du ko amee waaye nag orma yi kuy julli te nga war a sàmmoon te muñ faa jaar nag mooy fa nga xam ne fa fële dëpp ab jëxam la ko wër rek di ormaam nga xam ne fële dëpp ab jëxam rek loola mooy orma yi kuy julli moom sañoo faa romb boo julli itam bu kenn naree romb fi sa kanam foofu it na nga ko bës mu bañ a jàll assaabihata asharata fukkeel ba juróom-ñaareel assaayi du mooy aji yokku alaamaa ci la nga xam ne yasaxu dana yaatal dana xajoo assalaamu salmal ba dina julloo si jataay ba astaani bi aj ñaareel soo déggee jataayu ñaareel bi rek mooy taay ja nga xam ne ca nga nar a sëlmale moom nag moom daa bari yu ci daje ndax dafa am taaya am julli ci yonante bi am ñaan am wax asalaamaaleykum yan da cee tase lu ci nekk nag moom day bokk ak loola ab àtte ndegam taaya sunna la ab jataayam sunna lay doon ndegam julli ci yonte bi sunna la ba tey kon ab jataayam sunna lay doon ndegam ñaan luñ sopp la mooy ñaan la nga bëgg rek boo ko mënee ci arab ñu sib nga wax ko ci weneen làng bu fekkee mënoo ko ci arab li nga bëgg ñaan yàlla mën nga ko wax ci làng wa nga man ñaan googu lu ñu sopp la ab jataayam ba tey lu ñu sopp la wax nga asalaamaaleykum day farata kon diir ba ngay waxee asalaamaaleykum moom mi nekk farata xam ne kon jataay bu nekk la ci xew rek lay topp fii nag kon boo dee wàññi ko na ngay wàññi waale jataay julli ci yonante bi attaminata xasirata fukki ba juróom-ñetteel assaay bi mooy aji dolliku xalaa miqdaari tuma anilati ci kem dal ga dañoo waxoon ne loo yàkkamti yàkkamti boo dee julli foo toll ne tekk bu cër yi dal farata la gannaaw ba nga ne tekk bu cër yi dal loo ci yokkaat nag gannaaw ba la nga ci yokkaat nag ci sa coobare loolu sunna la waaw kon jàppal ne boo ne tekk bu cër yi dal gannaaw ba loo ci yokkaat rek sunna la faslun wa mustahabaatu salaat ya ñu sopp ci julli tasiir la ñu ëpp xalaa talaatina ci fanweer fadilatan ci ay ngëneel ne boo dee wàññi ngëneel jul boo dee wàññi ngëneel jul dañuy bari lool ëpp nañ fanweer al ula bu jëkk ba xiraatu ma'moomi mooy jàngu maamoom ma maxa imaam yi ànd ak ilimaan fi sirriyati ci julli yelu wala ci jàng yelu piccëk mooy bu sa ilimaan dee wax ci suuf yow itam ngay wax ci suuf ndax sam xel bañ a dem ci leneen benn nga ne ngoo ko ak taaniyatu ñaareel bi raful yadde yi mooy yëkkati yaari loxo ya ci ndo shuroo yi fa tàmbali ga fii takbiir ak ihraam yi ci kàbbar armal ba faqat dong yu xaas yi dana tolloole bi ci maaj ñoom ñaar man ki bay yaari mbaggam ya xaa ima tey ni mbir mi ñu aji taxaw waaw nee na bokk na ci ngëneelu julli booy wax kàbbar armal bi nga yëkkati say loxo ba mu tolloon teeg say mbagg mbaa diggante mbagg yeeg nopp yi ba nopp itam nga bañ nga bañ a ngëpp baaraam yi xanaa tàllal ko ko dee nga wax allah akbar daal di koy wàcce nag waaw loolu ngëneel la wa tatwilu xiraati ak guddal njàng ma fi suufi ci suba wa buxri ak tisbaar laakin waaye nag fi suufi ci suba ak loolu mooy gën a gudd sopp nañ boo dee julli yow dong mbaa nga ànd ak ñoo xam takk nga leen te ñoom ñëpp dañoo sawar ci julli gu yàgg kon bëgg nañ boo dee julli suba nga jàng ci saar yu guddi yi muy li wax tiwaalul mu fassal mu fassal yu guddi yi loolu nag moo tàmbalee benn saar ci xujuraat ba ba ci xabasa benn ci saar yooyu daal yaa ñu sopp nga jàng nga jàng ci wenn ci saar yu guddi yooyu bu dee yow dong mbaa ñi nga àndal ñëpp xam nga leen ñu bëgg julli gu yàgg amuñu ngànt amuñu dara amuñu soxla tisbaar tam noonu la dañoo sopp nga jàng ci saar yu guddi yooyu waaye nag suba mooy gën a guddalee tisbaar waaye lu ci mën doon daal ñoom ñaar mu nga jàng saari guddi yi ña nga amoo ngànt ña nga àndal amuñu ngànt loolu ngeneen la bu fekkee mbooloo mi daa bari nag ñee wéri di ñee amee ngànt nag ñee bari soxla nag nga jàng saari gàtt yi rek wa taqsiruha ak gàttal njàng ma fin xasri ci takkusaan wal maxrib ak timis takkusaan timis dañoo sopp nga jàng saari gàtt yi saari gàtt yi bu dee ci foofu moo tàmbalee sóoratu duha ba ci sóoratu naas ci diggante boobu lañ sokk bu dee takkusaan ba timis nga jàng ci benn saa ci saa yu nekk foofu wa tawa sutuha ak diggu doomu jàngee fi xisha yi ci gee bu dee gee ñu sopp nga jàng ci saa yu diggu doomu yi loolu nag moo tàmbalee xabasa ba ci sóoratu duha diggante boobu mu lañ jàpp ne moo diggu doomu wa taqsiru rakxati ak gàttal rakk ba asaniyat ba aj ñaareel xanil ula walis bu jëkk ba sopp nañ ba tey faaw ràkk bu njëkk bi gën a yàgg ab taxawaay gën a guddum njàng ràkkam ñaareel ba xam na ràkkam ñaareel bi daal mooy gën a gàtt aw saar mooy gën a gàtt ab taxawaay mooy gën a yàgg di daal loolu taamu nañ ko wa taqsiru julluus ak gàttal jataay ba al awali ba aj jëkk xan yu saani walis bu ñaareel ba maanaam taay ja nga xam te nga nar a sërmali mooy jataay ja nga na jataay ba nga nar a sërmali mu gën a yàgg jataay ba nekk yu ko jiitu te xam nga julli mën naa am lu ëpp ñaari taaya ci kaw rek ne la ci rawee jàpp na rek jataay ba nga xam ca nga nar a sërmali nar laa jógaat daal moom moom lañ bëgg mu gën cee yàgg ndax dañoo bëgg nga julli ci yonante bi ñaan boole ca bala nga sëlmal bu ko defee nag gépp taaya boo xam ne root caa sëlmal rek moom doo weesu abduhu wa rasuluhu waaye taaya ba nga nar a sërmali moom na nga julli ci yonante bi ba noppi itam ñaan boole ca door a sulmal wa qawlu rabbana wa lakal hamdu ak wax rabbana wa lakal hamdu lil ma'mum ñel ma'mum ci ndax xawlu imaam yi fa wax ilimaan ba samiha allahu liman hamidah bu ilimaan waxee samiha allahu liman hamidah muy sunna yow mi ma'mum daañu bëgg muy ngëneel la nga wax allahumma rabbana wa lakal hamdu ba tey boole rabbana wa lakal hamdu kese itam mu baax bañ cee boole allahumma waaye sopp nañ nga ne allahumma rabbana wa lakal hamdu wali fas di ak ñeel kenn baax dama yaquluha ci gannaaw ba dana ko wax kenn képp ku julli gannaaw bu waxee samiha allahu liman hamida ngëneel la moom itam mu wax rabbana wa lakal hamdu ba allahumma rabbana wa lakal hamdu wa tasbih ak sàbbaal ga fi rukoo ci rukoo ba wa sujoodi ak sujood ba booy rukoo ak booy sujood yëpp sopp nañ nga sàbbaal noo sàbbaal rek baax na min nanu nag subhaana rabbil azimi wa bihamdihi ci bu dee ci rukkoo ba waaye rukkoo mu doo ci boole ñaan da ngay sàbbaal kese yem ci sujjóot miin nañ ci subhaana rabbiyal a'la muy sàbbaal boo ci boole allahumma axfir li yàlla yàlla na ma jégal la mu daal nekk ak ñaan ba tey boo rukkoon baa nga sujjóot te waxoo dara dara itam du tee rek mu baax waaye nag sàbbaal googu ngëneel la bu dee sujjóot ba nga boole waale ci ñaan ba tey ngëneel la watta amiinu watta amiinu ak wax amiin siran ci yelu wa huwa moom xawlu amin mooy wax amin yàlla na nga nangu ñaan baax na taraaxi ci gannaaw noppi ga min al fatihati ca fatiha ga min al fatihati ca fatiha ja bil maddi ca bijji ga maxat tax fii fi ànd ak woyofal ga nee na gannaaw boo taree fatiha ba ci wala daalin daañu sopp nga wax amin fekkee yow doo ngay julli moom daañu ko sopp ci yow saa yu nekk su fekkee daa am ku lay jiite itam boo déggee mu wax wala daalin ñu sopp nga wax amin moom mi jiite itam bu dee yellu dana ko wax waaye bu dee biral nag moom bu dee ci yoonu Malik du ko wax day bàyyi maamam yi wax ko nga jàpp ne amin yàlla na nga nangu ñaan maanaam bu dee ci naxu muy li si ni fi xali amar daal loolu ci gën a siiw li mu lay bëgg a wax nag moom manees na koo bañ a jàpp ndax dane amin ismullahi turu yàlla taxala kawe na wa noonu xóote nuunam nga madd moomat lu ñu dàmm la a lu ñu maas maas ko lonk la ala ni daay ci kaw woote at taqdir na taliba mooy yaa aminu ci ni waxee nee na boo nee amin masque masque nag da nga caa taxaw rek waaye ci dëgg-dëgg nee na daay maanaam yaa aminu muy turu yàlla woowoo ak yaa turu yàlla woo def yaa masque masque ak longu ci cosaan muy yaa aminu ne noonu la waaye jàpp nañu la waxoon léegi rek wax ji gën a wër mooy li si fil amar la ak yu maanaam istajib day maanaam ci ni waxee nag moom yaa aminu istajib yàlla na nga nangu du xaa anaa sunu ñaan. wala yu aminu du wax amin alma moom maa moom xalfal imaam yi ci gannaaw ilimaan fil jahriyati ci njàngum biral illa isa samiha ndari ndéem dégg na xiraataxoo njàngam ma ne bu amee ku lay jiite nag bul jéem a tolloole amin ji ngay bàyyi ba dégg mu wax wala daalin bu wér a wér nga door a wax amin waaye nag ndigam déggoo ko bul ko jéem a tolloole wal xunóotu ak xunóot fi suppi ci suba fàqat dong baax na faraax ci gannaaw noppi min xiraati ci njàng ma fi rakxati ci ràkk ba ak saaniyat koy aj ñaareel xam na rukkoo ci njëkk rukkoo siran ci yelu ba tey nee na xunóot ngëneel la waaye julli suba rek moo ko am teyit ràkkam ñaareel ba boo jàngee faatee ak saaro ba noppi nag bala ngaa rukkoo foofu lañ ko soppee teyit xunóot danga koy wax ci suuf doo ko biral wala zuhu ak baatam ba ba tey sopp nañ nga defee ko baat bi nga xam ne moom la ñuy bëgg a wax te bañ ko defee beneen waxoo moom baat bi nag mooy allahumma yow buur bi inna naka nun nastainuka dana nu sàkku sa ndimbal wa nastaxfiruka te nuy sàkku sa njëggal wa numinu te nuy gëm bi ka ci yow wa natawakkalu te nuy wakkirlu xalayka ci yow liñ ci teg nag moom ba ci wanax naxu nga bañ koo jàppaale cee teg wanus ñi te nuy tagg xalayka ci yow alxayra yiwwa kullahoo léppam nashkuruka dana nu la sant wala nakfuruka te duñ la weddi mooy duñ weddi sa njekk xunóot li muy tekki mooy suñu boroom daal noo ngi sàkku sa ndimbal di sàkku sa njëgal dina gëm te wakkirlu ci yow baa di teg nag muy tañu tagg ci yow sa yiwu bari wi di la sant te bañ laa te bañ a weddi sa njekk tàmbalee wanus nii ba ci wala nakfuruka mën nga koo bañ a mokkalaale ndax wax ji gën a wóor mooy boolewuñ ko ci nett li bu wér bi boo waxee rek wan tawakkalu xaaleyka da nga ci teg wanax naaw tani toroxlu laka jëm si ci yow wanax laaw te nuy sunniku ci jëpp diine ju bokkut ak sa joj wanatruko te nuy bàyyi man képp koo xam ne yàq furuka dina la weddi sunu boroom noo ngi toroxlu jëm si ci yow di sunniku ci jëpp diine ju dul sa diine lislaam ji de mooy di sunniku ba set wecc ci jëpp diine ju bokkut ak sa diine ji mooy lislaam képp ku la wedd itam nu bàyyi ko fa allahumma yow buur bi iyaaka yow dong naabud la ñuy jaamu wala ka ngir yow rek nu salli la ñuy julli wa nasjudu te ñuy sujoot wa ilayka jëm ci yow dong nasha la ñuy dox wa naxfidu te ñuy gaaw narjoo danañu yaakaar rahmataka sa yërmande wa naxaafu te ñuy ragal xasaabaka sa mbugal ak jidda gay aji tar inna xasaabaka naka sa mbugal mulxiqun aji yéeg la bir kaafiriina ci way weddi ñaa suñu boroom yow dong la ñuy jaamu yow képp la ñuy julli la ko sujjootal yow képp la ñuy daw di gaawtu jëm ci sa ndigal di yaakaar sa yërmande di ragal sa mbugal gu metti ga ndax sa mbugal moom ña la wedd rek ca la gën a yey ñoo ko yeyoo loolu mooy xunóot wa duhaaw ak ñaan baax da tashahudi ci gannaaw taaye ja asaani ji ñaareel bi ñu taaye ñaareel mooy taaye ja nga xam te nga nar a sëlmale nga xam ne laa jógaat ndax julli mën naa am yetti taaye ba ci yent sax waaye nag taaye ja nga xam ne daal moom te ngay noppee doo jógaat sopp nañ boo jullee ci yonante ba noppi nag nga ñaan ñaan nga soo ko mënee ci arab ñu sib nga ñu sib nga wax ko ci weneen langue waaye su fekkee li nga bëgg ñaan yàlla mënu ko wax ci arab mën nga ko wax ci langue ba nga mën ni bu dee yow nga wax ko ci wolof wa taqdimu yadayhi ak jiital yaari loxoom ya yéen a yax wi ci waxtu wa dana rot way dana xawiku bi xima ak ñoom ñaar li sujoot jëm ci sujoot li sujooti alaaru kubatay ci ñaari bëti woom ya mooy sopp nañ boo xawikoo ci kaw di sujoot si nga njëkk rëppeel say loxo ba noppi door sukk say bëti woom loolu taamu nañ ko wa taqdimu rukbatayhi ak jiital ñaari bëti woom ya ala yadayhi ci ñaari loxoom ya inal xiyaami fa jóg ga soo yëkkatiku jëm ca kaw nag dañoo bëgg moom bëti woom yi njëkk a jóg loxo yi mujj a jóg xam nga booy ñëw moom dañoo bëgg loxo yi ñëw ba rëppeelu nga door a sukk waaye booy jóg dañoo bëgg bëti woom yi njëkk a jóg loxo yi mujj a jóg kon am na wuute am nañu ko gise ñu bokk su noonu nag waaye bu dee ci yoon Maalik moom noonu lañ ko soppee wa aqdul ximsari ak banque baaraamu sangaleñ ba wal bin sari ak ndombur ba wal wusta ak baaraamu diggatu ba bi ne yëddi ca loxo ba aliw naa bay ndey joor maat dan mbir muy aji tàllal as sabbaaba te baaraamu sànnikaay ba wal ibhaama ak baaraamu day ba min haa ci loxom ndey joor ba fi tashahudee ni ci yaari taaye wa yu xaraliku te mu yëngal as sabbaaba te baaraamu sànnikaay ba maanaam booy taaye moo xam taaye bu jëkk bi la wala taaye ñaareel maanaam daal moo xam taaye ba nga nar a sëmale la moo xam ba nga narta sëmale la bëgg nañ sa loxoom ndeyjoor bi nga bank ñetti baaraam ñii mooy bii di moom sangaleeñ ak bu sës ci moom ñu koy wax ndombur ak bi ci sësaat muy diggutu nga bank leen ñaar yi nga tàllal ko moom baaraamu sànnikaay bi ak baaraamu dey bi da nga leen tàllal day wax kon da ngay tàllal baaraamu sànnikaay bi ak baaraamu dey bi te baaraamu sànnikaay bi nga di ko yëngal moom waaw nga xam ne bu sa taay jeexoon te ilimaan sël mën a gudd teere nga di ko yëngal te day bàyyi ko ndeyjoor jëm càmmoñ nga di ko def nii waya taqidu dana fas bi ishaara ci junj ga bi xa ak baaraam boobu ni ànd xa naka moom mitra datun ab dàqukaay la li seytaane ñeel seytaane am nañu jàpp ne baaraam boobu boo ko di yëngal muy baaraamu sànnikaay bi ci loxoom ndeyjoor bi day mel ni yet wooyu dóor seytaane mii la bëgg a jaxe-jaxee ci julli gi borom misaala moom daa waxoon ne daa jàpp ne li fa yaa ngi yëngal baaraam boobu daal dana la fàttali ne la ci julli nga nekk ba xëy na doo juum sam xel dem ci leneen waaye bu sut semi tàllal al yusra loxob càmmoñ ba maanaam loxob càmmoñ bi moom baaraam yëpp da nga koy tàllal doo ci bank benn da nga koy teg rek noonu ci sa luppub càmmoñ te bañ cee bank benn baaraam nga bañ a fàtte nag boo toogee diggante ñaari sujjóot ñi amul yëngal baaraam amul bank baaraam amul yëngal baaraam diggam diggante ñaari sujjóot ñi ne moom da ngay tàllal baaraam yépp jël say loxo ne leen tegg ci say bëti woom rek waaye doo yëngal benn baaraam yëngal baaraam yi ci taay lay am waawa box yedde yi ak teg ñaari loxo ya ala rukk ba tey ni ci ñaari bëti woom ya fi rukkoo ci rukkoo ba maanaam boo ñu rukkoo nga jàpp ci say bëti woom bu dëgër a dëgër nga nil rek la ne boo xasee sëgg rek ba say loxo jege say bëti woom kon dal ngay am rukkoo waaye nag jàpp say loxo ci bëti woom yi bu dëgër bokk na ci ngëneel yi wa wabbuhuma ak teg yaari loxo ya xadwa udunayhi fa tolloog ñaari noppam ña aw qurbahuma wala fa wetuñu aw qurbahuma wala fa jegeeg ñoom ñaar fi sujjóor ci sujjóor ba boo sëggee sujjóor dañoo bëgg nga indi say loxo bam tolloog say nopp mbaa mu ñëw ba jege ko muy fa nga rëppeel say loxo daal day ñëw ba tolloog nopp yi mbaa mu jege ko loolu sopp nañ ko te nga bañ koo bàyyi moom loxo yi mu mu des ci gannaaw li gannaaw loolu ëpp naa def wa mujaafaatu rajuli ak soreele góor fi sujjóor ci sujjóor ba benn rukkubat yi diggante yaari bëti woom ya wa bayna mirfaqa yi ak diggante yaari concoom ya wa jëmba yi ak ñaari poqtaanam ya mu yaari wetam wa bayna fax yi day ak diggante yaari luppam maanaam góor moom bu dee julli dañoo sopp mu yàng cër yi mu yaatu nga xam ne day soreele ñaari bëti woom yi soreele përëg yi ak poqtaan yi ci noonu mu sëggee di sujjóot bu mu jël ay poqtaanam maanaam bu mu jël ay- bu sëggee di sujjóot bëgguñu mu jël ay përëgam bu suuf sëgg ci ay poqtaanam dañoo bëgg itam mu mu yàng diggante ñaari lupp ñi ñu soree dañoo bëgg itam biir bi sorenteeg bëtiwoom yi moom daal dañoo bëgg rek bu dee góor moom bu dee julli mu yàng risaale waxam ne bu dee jigéen nag moom dañoo sopp mu lem ay cërëm maanaam cërëm yooyu jege xam nga góor moom day ràcc cër yi mu yaatu ni ñu ko waxee waaye bu dee jigéen nag moom dañoo bëgg cër yi jege moom mu mañ ko ràcc wala yëpp moom la wax naa watakkoonu mun dammatan mun zawiyatan dama waxoon ci risaala wa takbiru sopp nañu wax nga allahu akbar hinda shuroo yi fa tàmbali nga fii afhaali salaati jëfi julli nga illaa fii takbirat xiyaami ndara ci kàbbaru jóg ba minis na tey ni bàyyi ko ci ñaari rakka fa indahu naka moom yu kabbiru haa dana ko kàbbar wax damaa yestawi ci gannaaw ba mu yemoo xaayiman mbir muy aji taxaw daa wax ni sopp nañ jëfi julli gi loo ci jëf rek nga boole jëf gi ak waxaali allahu akbar booy sëgg boole sëgg gi ak waxaali allahu akbar booy siggi boole siggi gi ak waxaali allahu akbar te guddal allahu akbar ji ba nga xam ne booy àggalee ponk booba fekk allahu akbar ji door a daanu moom itam ba mu des nag boo amee ñaar jóg jëm ci ràkkam ñetteel foofu dañoo bëgg moom booy tàmbalee jóg bul wax dara ngay bàyyi ba taxaw jonn door a wax allahu akbar moo xam ilimaan nga moo xam maamum nga moo xam kenn nga koy julli wa tawarruku sopp nañu pooju fil julloo say nit ñaari jataay ya wa bay na sajdatayni ak diggante ñaari sujjóot ña waxoo moom pooju nag boo ko xamut añ yuf diye mooy mu àggale yu wari kii ca poojam ba ak ay sati bay càmmoñ ilal ardi mu jëm suuf wa yuxrijati muy génne rijlay ci ñaari tànkam ña jami xan boole seen ñoom ñaar min jaani bi ci wetam nga al aymani ngay ndeyjoor wayen si wate muy samp xadamaxoo ndëggoom la al yumna lay ndeyjoor wa baa tinu ibrahamil yumna te biir baaraam mu dayu tànkum ndeyjoor ba ilal ardi jëm na suuf ilal ardi wa yes ni te muy lem al yusra tànkum càmmoñ ba wa yadaxu te muy teg kafay yaari tengam xalaa fax yi sëy ci kaw ñaari luppam am na xeet toogin woo xam ne ngëneel la moo xam ne ngaa toog diggante ñaari sujjóot yi moo xam ne ngaa toog di taaya taaya bu jëkk ba taaya bu mujj te loolu mooy sa poojub càmmooñ day àgg ci suuf si nga xam ne doo toog ci say tànk poojub càmmooñ bi moom day àgg ci suuf bu wér a wér su ko defee sa say tànk nga génnee ko ci wetum ndeyjoor ndëggul ndeyjoor la itam nga samp ko te biir baaraamu dëyu ndëggul ndeyjoor loolu moom it samp jëm suuf wala nga xaw ko woon dëngal na risaala waxe woon wetu baaraamu dëy bi xaw a dëng te bañ a samp bu wér a wér su ko defee tànku càmmoñ nga lem ko te bañ caa toog bu ko defee nag nga jël sa ñaari loxo teg ko ci kaw say lupp bu fekkee diggante ñaari sujjóot nga moom doo yëngal benn baaraam li ñu ko waxe woon léegi bu fekkee ne day jamono yi ngay taay na moom da ngay bank ñetti baaraam yi nañ ko xewoon tàllal ñaar ña te yëngal baaraamu sànnikaay ba kon melawoo maa ngi koy wane nii wane nañ ko ba taayee taay ñu bare bare gis nañ ko ba taayee melawoo ñu sopp la man am na gis koo xam ne jàng na ko xam na ko du ko fàtte waaye day am ngànt loo xam ne moo ko koy tee def wat tayaamunu sopp nañ day jooru bi salaam yi ci salmal ba almafrood ba di bañ farataal li kulli musallim ñeel jëpp aji julli ba tey asalaamaaleykum ji nga xam ne mooy farata ji bokk na ci ngëneel yi boo koy wax nga xaw a duumóoyu tuuti ba ku la féeti woon ndeyjoor seen sa pegleex moom lay wax naa waxoo moom ndeyjooru an yushira mooy mu junj bi ra yi ci boppam xubaalatu wacc yi ci njëxul kanamam wayata yaa mën a tamit ndeyjooru biha ak moom xalilan tuuti bi hay sutura ci boo xam def na gis safxatu wacc yi pegg kanamam nga waaw nee na mooy booy wax asalaamaaleykum ji da ngay xaw a junj jëm ci xibla bu defee kum nag kum ji nga mottalee ko ci xaw a ñabi ko tuuti sa wetu ndeyjoor ba ku la féete woon ci gannaaw di séen sa pegg lex ku la féete woon ci gannaaw di séen sa pegg lex waaye du aajo woon nag nga ëppal lool ni nga dumóoyoo ba mel ne ku wañal bi ko benn yoon loolu taamuñ ko ñoo bëgg rek nga dumóoy dumóoy bu yem ba ku la féete woon ci gannaaw séen sa pegg lex wan nazaru sopp nañu xool sopp nañu xool illaa mawdihi sujjóot di jëm ci bérébu sujjóot ba fii qiyaamihi ci taxawaayam ba dañoo bëgg boo taxawee ak foo mën toll ci julli gi say bët ne jàkk fa nga xam ne moo tolloog fa ngay sëgg sujjóot bu ngay sëgg sujjóot rek ngay xool foofa bañ a xool feneen wa mubasharatul ardi ak jonjonteeg suuf aw maa wala loo xam ne tumbituhoo dana ko saxal moom suuf di wàcc ci kanam nga wal ka fayn ak yaari jàng ya maanaam tàmm nañu boo dee julli nga fexe ba fa nga dëpp sëb jë ak fa nga dëppee say loxo lépp nekk suufu kese ni ki bu fekkee ci bitti ngay lal sa sajaada mbaa sab der na nga koy lale na nga bàyyi fa ngay sëgg di fa sujjóot di fa dëppee say loxo lépp nekk suuf bu dee ab néeg mel ni néeg bi nga nekk mbaa jàkk jana ñu lal ko ay basan nag mbaay tëpp yi ba mu daj nag ngay bàyyi noonu rek du aajow ngay tibb suuf di andi foofa waaye bu dee foo xam ne mën ngaa fexe ba ba ngay sëgg di sujjóot moom nga xam ne fa say jëf di tegu ak fa say loxoy tegu day nekk suuf moom loolu daañu ko taamu ndax moo gën a wane ak toroxlu wal mashyu sopp nañu dox ili salaat jëm ci julli ga bi waqaarin ànd ak weegu wa sakinit akuk dal taamu nañ booy dem ci julli ga nga bañ a daw mel na ku ñeme yàlla mi nga jëm ci moom dañoo bëgg rek nga dox dox bu teey ànd ak wegu ànd ak wekk ki nga jëm ci moom te bañ a daw du tee maye nañ nag boo bañee ràkk raw la nga waaxu nag te bañ a daw waati daalu sufoo fi ak yemoog sab